ba ñu ngi jàll mi ngi jàll parrainage am mais génn na tamit ci kaso bi mën a def campagne mun a def candidature mën a def léppam moo tax ku mel ni man mënta ñàkk xalaat ñu nekk ci même condition que moom waxtu wi di def parenage fekk ñoom aussi ñu ngi dans les liens de la détention la deuxième chose mooy effectivement ñun xëy na ñi nga xam ne ñoo déposé parlement euh, parrainage parlementaire wala parle euh, parrainage Euh, euh, élus locaux chef d'exécutif local muy maire muy président de conseil départemental xëy na amuñu même stress que ñu déposer euh, parrainage citoyen wax naa fi la dernière fois que souvent même ñu koy déposer la situation était injuste mais je l'avais déjà dit donc ñun ñëpp ñu ko déposer tey dañoo bénéficier wu des résultats du dernier dialogue bi amoon fii Sénégal le dialogue politique en définitive le dialogue n'était pas si mauvais que ça parce que nous en profitons tous ñun cinq ñi ko déposé yëpp dañoo profiter en fait de du du du dernier dialogue donc il faut véritablement se féliciter d'avoir eu le courage tenir ce dialogue la et d'arriver justement à ces à ces résultats la dernière chose maintenant que je voudrais dire c'est que parrainage dafa nekk ci digg élection ndax élection lu ñuy wut mooy fexe ba jongante am ndax démocratie bu amul jongante amul démocratie waaye ñaareel bi tamit mooy fexe ba am ba am candidature ay candidature farfelues c'est-à-dire ku nekk ñëwee mun na def ne dafa bëgg a nekk président de la République man am naa chance su déposer koo xamante ne candidature am kenn amul benn xel Sénégal bu nanguwul ne Khalifa Sall est prêt pour être président de la République amul kenn kuy analyser simplement de raison bu nanguwul ne moom la ñu gën a waajal pour mu nekk président de la République fii amul kenn kuy werante ne moom bu nekkoon président de la République le 2 avril bu yeggee palais le 3 xam ne lan lay def ci biir euh, lan lay def ci euh, en tant que président la République le devoir de la charge de président de la République ak lu mu àndal moo tax waruñu fal nit mu dem présidence de la République di fa jàng métier président de la République kenn du fa jàng métier dafa am na ngay am jaar-jaar doog doog faa yegg sinon nit ki na toog foofu benn mandat di waajal wala di jàng di euh, di jàng nekk président de la République moo tax ñu on a la fierté de présenter aujourd'hui ki nga xamante ne moom la ñu gën a waajal pour mu nekk euh, euh, euh, président de la République mu exercer la charge de de de président de la République donc heureusement c'est tout heureux que ñu valider justement sa sa sa son parrainage. merci beaucoup. alors parce que comme ñun ak yeneen candidats yi ko def. effectivement mu ëpp garanti si ñun euh, defoon nañu parrainage citoyen motolool nañ ko wax naa ko fii car j'ai même présenté les chiffres que nous avions je suis ici avec l'informaticien je pense aussi à Saliou Sarr a coordonné en fait tout le tout le parrainage mais le parrainage citoyen le problème bi muy indi mooy tu as des éléments que tu ne maîtrises pas et c'est ça mooy dal les candidats candidats yi fi ñëw jàll benn da ngay gis koo xamante ne dafa déposé ñu ne ah ki nga déposé kat nekkul si fichier mooy benn deuxième bi ñu ne waa yow kat déposé nga mais parrain yi nga indiwoon woon fii am na ku la njëkk a déposé parrain yooyu donc nit mën na motal parrainage citoyen ba pare ñëw fii ñu invalider la la deuxième chose aussi mooy jàpp naa ne boo amee possibilité déposer parrainage parlementaire pour permettre ñeneen ñu am chance jàll li gën a jaadu mooy yow nga déposer sa parrainage sa parrainage parlementaire loolu d'ailleurs moo taxoon loi bi